doléance bi dafa yàgg te doléance bi du loo xamante ne dañ koy ñaan wala ñu koy saraxu wala ñu koy yelwaan sunu alal la lépp ay salaire la ñun ñoo ko moom liggéey nañu liggéey bi dàq nañ ñu dissoudre nañ suñu société ñuy réclamer sunu xaalis nanguñu koo fay boobu ba léegi presque ñaar fukki at a ngi nit ñi topp ci gannaaw xaalis bi topp ci gannaaw xaalis bi état bi tànkam lu ñu boobu ba léegi léegi na ñun ay mag lañu ay borom kër lañu ay lépp lañu parce que tey jii boo demee ñii nekk fii ci jàkk ji xam nga li nga wax léegi noonu la mu neexut a xool ndax ay borom kër ñu 60 ans 60 62 ans 74 ans ñu nekk ci biir jàkk di xiifal ndax di la laaj sa seen alal nga tànqamul leen dafa jaaduwul rafetul sax ci diggante jullit ak morom mi donc état bi waru ñoo tànqamlu parce que réew mi ñun ñoo ko defar ñun ñoo daan teel njëkk a jóg ñoo daan mujjee tëdd tey jii waruñu fayee lii parce que li ñu fayee dafa ñaaw c'est pas joli à donc mbir mi na état bi jóg feeñu suñu xaalis lu loo xamante ne dañ ñu ko dañ koy ñaan déedéet al sunu alal la dañ koo liggéey nañ ñu ko fay boobu léegi ñu ngi koy réclamer ñuy tànqamlu surtout le ministre des finances ministre des finances muy gën a tànqamlu nag waaw faale wuñu te ñun ay mag lañu daf ñu war a faale waaw tey xaalis bi ah, ba tey mm, rek rek rek ñu ngi leen amel neuf milliards cent treize millions SIAS ñu ngi leen amel euh, un milliard cinq cent ama ñu ngi leen amel deux milliards e quelque boo ko boolee le tout ça fait presque treize milliards état bi jox nañu veillu tabaski bi. un milliard six cent donc dese nañu onze milliards et quelques onze milliards et quelques yooyu lañ koy lañ koy laaj parce que ñoom dañu ne woon dañu mayoon un milliard six cent yooyu mais munoo amee nit ki xaalis feyoo ko borom ba pare nga ne danga koy may loolu yenuwul maanaa loolu neexut a dégg ci nopp donc nañ ñu fay suñu xaalis. grève de la faim depuis kañ lañ de la faim depuis ajuma si ngoon lañ ko tàmbalee. juma si ngoon ba léegi paa yaa ngi ci biir jàkk ji di xiifal waaw boo ba léegi. am na ay conséquences parce que tey ci ngoon sax dañ def ay évacuation am na ci ñaar ñoo xam ne sonn nañu dañoo sonn parce que xam na xiifal neexul alors il foog ñu évacuer leen yóbbu leen tey incha allahu rabi am na ay conséquences parce que grève de la faim am na grève la faim bi ñu fi defoon am na ci camarade boo xamante ne ci la jëlee ay séquelles. benn noonu mu décédé. autorité tegu fi tànkam bi ñu ko commencé ajjuma bi fii ñuy wax benn autorité tegu fi tànkam te ñoo ñëpp dégg nañ ñu. bu fekkee ne amuñ satisfaction dañu ne grève de la faim illimitée moom lañ wax amul app amul app tant que amuñ satisfaction daal ñu ngi fi.